dañu tàmbali une tournée nationale boo xam ne yóbbu nañu déjà Kaolack région bi yëpp def naa fa ñetti fan euh, ñetti fan yii nag maa ngi région Diourbel dem na Bambey dem na département Diourbel euh, démb ba léegi maa ngi département Mbacké waxtaan ak askan wi présenter leen suñu yéene ci Sénégal présenter leen projet Euh, Gelawaar tournée boobu noonu lañ ko bëgg a defee ci Sénégal yëpp noonu lañ ko bëgg a defee aussi au niveau international pour que sénégalais yi xam suñu offre politique boobu. Euh, ci loolu ñu waxtaan ak ñoom ci suñu ëllëgu parti bi et ci présidentielle 2024 bi laaj leen ci seen i xalaat maa ngi wax ni ci tournée bi li ñu gis mooy euh, suñu candidature à la présidentielle ñu ngi koy tabax candidature boobu. soo xoolee fondation candidature boobu euh, lu solide la lu dëgër la fonda fondement yi fondation yi et jàpp naa ni fan yii di ñëw euh, dina gën a feeñ à travers benn congrès national boo xamante ni convoqué nañ ko au mois de janvier ci congrès national boobu nag parti bi dina wax lu jëm ci candidature parti bi ci présidentielle 2024 boobu mais li ñu gis ci àll bi daal dal na suñu xel ci jàpp nañ ni fondation yi yi nga xam ne ñoo war a porter candidature boobu taxaw na. li ñu gis ci àll bi ci dëkk yi nga xamante ni jaar nañu fi e, yépp bi ñu jaar nañu làmbaay e, dem nañu fële gàtt aussi waxtaan aussi ak baykat yi demoon loolu lépp li mu wan mooy. li may wax ni askanu baykat yi le peuple des paysan dañ leen a bàyyi dañ leen a fàtte bokkaguñu ci réew mi booba ba léegi te loolu lu lu war a jeex la ci ci Sénégal ñu jàpp ni campagne arachidière bi niñ koy yore ci réew mi ay ati at muy répété wu dara baaxu ci day yokk néew doole rek euh, baykat yi te ñi nga xamante ni ñoom ñoo yoru campagne boobu du ñu ay nit ñoo xamante ni bu fekkoon réew mi mi ngi tegu ci yoon di dox ni mu war a doxee am nañu mat ak xereñu yor campagne boobu ci boppam mais comme politique politicienne moom lu yaatu la ci réew mi ca jeexagul donc loolu moo leen indi ñoom ñuy gérer campagne boobu ñu jàpp ni état bi war na gën a bàyyi xel baykat yi war na gën a bàyyi xel gerte gi non seulement ñu yokk prix bi nga xamante ni moom la ko état bi di jëndee ci baykat yi mais ñu jàppale réew mi ba li ñuy wax industrialisation ndaxte gerte gi li ci war a mën a jóge dafa bari transformation yooyu ci prix boo xamante ni bu bon la du dara ñu dem transformer ko indi ko di ñu ko jaayaat ci prix boo xamante ni day cher tant que ñu ngi subir cycle boobu di bay jaayee ñoom ñu yóbbu bitim réew defar indiwaat jaay ñu ko prix bu cher tant loolu baykat yi fii ñu nekk duñu fi jóge ca loolu baaxul de mooy réew mi day continuer di taxaw. commerçant Touba yi daje na ak ñoom ñu waxtaan ma présenté leen samay gis-gis ci économie ci koom koomu réew mi nan la ñu war a doxale koom boobu patriotisme économique fexe ba ñu moomaat suñu bopp ci wàllu économie ci wàllu koom ñu moomaat suñu monnaie suñu xaalis ñu moomaat suñuy industrie ñu moomaat suñuy ressource minières fexe ba secteur privé national bi am doole waaw fexe ñu am ay milliardaires yoo xam ne mën nañ investir mais nekk ay doomu réew mi ndax li la jor Diop doon wax ni gan du tabax doomu réew mooy tabax réew loolu mooy dëgg bu fekkee bëgg nañu tabax développement bu wér récépissé boobu ba léegi jotuñu moo tax may interpeller Antoine Diome ndax ñun ay doomu réew mi lañ bokk ci réew mi yaakaar ni am ay droit am droit politique euh, taxawal kuréel politique lu ëpp ñaari at a ngi nii mu téye suñu récépissé politique ca droit yi nit ñi am lañu am devoir yi nit ñi am aussi la ñu am dañu am droit doxal suñuy activité politique am droit am ay ambition ci réew mi vraiment jot na sëkk may interpeller droit de l'homme si yëpp organisation société civile pour que ñu wax ci parce que lu ëpp tuuru mu jox ñu suñu récépissé pour que li ñu war a doxal ci politique ci réew mi ñu doxal. waaw assemblée la fa xew kenn mënu ko rafetlu ku waxtaan rek dëgg la suñu borom nangu waaye buñ ko rafetluwul it li wér te wóor bu fekkee dëgg rek la ñuy wax mooy waa APR ak seen député boobu ay la yëwén ñoom ñooy sookee la fa am. ndax réew mii di Sénégal dafa am lu ñu baaxoo suñu kilifa diine yi dañ leen di xormal dañ leen di jox respect mënuloo fekk nit kilifa diinaam mu yaakaar ko àdduna ak àllaaxira ngay jël wax ju tegginiwul di ko teg ci kilifa diine googu ñi wax la nga continuer ba muy wax lu tegginiwul ñëpp ko waroon a arrêté y compris kon yaakaar naa ni ku wax lii wax la ca des loolu mooy dëgg moom ci boppam ak ñu mel ni moom ci boppam nañu bàyyi tooñ ndax tooñ googee moo indi lii lépp nag coow li coow li li mu bari bu dul woon ak tooñ googa lii am du am donc loolu lañ ciy wax